dootuñ ko wax bu ngeen seetloo léegi lu mel ni ay réeb am na suma benn mbokk moom waxoon ne war nañoo waxtaan ci réeb mooy réeb yi xew léegi waaye yi li ñuy waxtaanee yëpp daanaka mooy loolu rek parce que tey lu lu mel ni réeb yooyu ñuy wax naan euh, dañuy fiif jigéen ñi réeb bi nangam euh, gaa yi ja mu jaral leen lu nekk luwaa bi ne loolu dañ ko garaawal ku ko def nañ la nangam nangam nangam wallahi ànd nañoo yéen ci loolu parce que réeb baaxut waye reeb di waron nañu seet liko waral gis nga l'hôpital bo fa ñëwee docteur bi da fay jema xam sa bi luko isi ak lan mo koy develop mu jëm ko calme su ko ta fajj sax dana ko jema a calme dañ nga wona xam lan mo isi lulu. Liku isi moy bok na ci moy beuril mandi xale yu tuuti legi ñu amé tay ji di foyé xale bobu lu muy bañ koku hatta ak ay wéy juróom sax duko ko bañeti bu day dem bam yag yàgg dutu bundau. bañeti waxuma la xale bu ndaw ben benen bi mooy midiye bi lepp luñ doon ayé ne beut waru ko xol legi xale yang koy xol nit ñang koy xol te li nga yag xol diko gis bu yagge dang koy bëgg jëfëndiko xale bu jigen bu ndaw bu am fukki at ñi jox ko ben euh, palaat defal ko ca ak tuuti muy wër di jaay di dem ci garage danga koy fekk ci garage yi mu ngi ci biir góor ñi di toog ci seen kaw bët yi wow du ragal dara bu njëkkoon xale bu jigéen bu am ñaar fukki at sax wala fanweeri at su doxee ci mbedd ba malaanam naaw ba lëppam feeñ dafay gis mu njëkkalante dal di ko delloowaat xànd ak kersa waaye léegi lupp yooyu doon feeñ li ko gën a garaaw la ñuy feeñal ci mbedd mi daje dépare Serekunda ba base di toj dëkk bi te duñ ko yëg léegi gannaaw loolu am na ba bët yi wow nañ ba bët yi waw nañ ba nga xam dara ragal duñ ko leg xale bu jigen bobu moy fekk goor gi ci ba pare reep ko buñ paree ñu ne goor gi ko reep xale bu jigen be koy reep ndax moy ñew ñaan ci la xaliss nga may ko xaliss wala moy la jëndal ma crédit nga jëndal ko crédit de nga ñom ñepp and bëggoon door xaliss ki am ki am juroomi ak japp fukki at sax ñoo bëgg ñoo a bëgg xaalis buñ gisee ku leen di may xaliss ba yagg te ñu ngi sétane ci seen mobile yi loo daf leen di Euh, daf leen di encourage ci ñi def sëy bu boobaa mooy waral ñi dem ca góor ga jege ko góor ga itam ci leen dugal ci biir néeg def la mooy def buñ paree ñi ne def ko réeb wala léeg-léeg nga gis ci yaay joo xam ne sax dafa bàyyi doomam muy wër ba yàqu ci xàll ba mu see benn góor rek goo xam ne nii xëy na bokkoon na ci ñu ko yàq rek mu dal di ko ko xen kooku itam dal di xam xay te fekk problème ba yëpp kat ci jigéen ji la déparé jigéen ñi buñ yàqoo xërum na bi yàqu buñ deferoo lépp defer jigéen lim yoore jot ci yombu de jot ci yombu de lu xale bi ndaw ndaw ndaw ndaw ndéem téye na boppam te bëggul la koo jox hey balaa nga caay jot su yuuxoo rek nga bàyyi ko buy yuuxu nga ba ko waaye xale boo xam ne moo lay fekk sa biir nit di la ñaan xaalis xale boo xam ne fu mu toll mu ngi ci mbedd mi di jàpp ci loxool góor ñi di ñaan xaalis di toog ci seen kaw dugg ci sànc yi ñuy liggéey nii bo len fa fekke ñi jaay ayis ak lu nek ragaluñ dara seen beedi dafa wow kong su ko defé ñu nan reeb reeb reeb ah reeb de baaxul waaye waron nañu bàyyi xelan isi de xale jigeen ñi ñeme nañ léegi de ragaluñ dara seen beedi dafa wow seen beedi dafa wow te nak comme ñom ragaluñ dara te ñom liñ yoré ñoko waron na denc te góor mom xam ngeen ni ak nitiyam dafa yomba dem ci walu jigeen su boba lu xew deug la bilim gur waye deug deug fiñ waron na ñaka njëkk a déparé ci jigeen xale yi léegi ñoom ñoo dee war ñoo dee cos problème bu xale yi jigéen yu bëri ñoo dee cause problème boobu noonu su ko defee nag bu lii xew-xewee ba pare nag ñu door a jóg nag léegi la nga xale boo xam ne nii ay ay nit a ko ñu sëy moom ay dafay tànn ku ko neex rek dal ko ko xen ne que ñi ngi la bàyyi woon ngay wër rek ragaluloo dara amuloo kersa su ko lu jar bàyyi xel la bu njëkkoon yaay yi sa xale bu jigéen bu génnee jàngi bu ñëwee sax yaa ngi xool nu mu ñëwee xool kanam nga xool nu muy doxee dégg nga lépp di ko nemmeeku waaw bu demee ba mata gis période ngay seet mbiram ba xam ndax gis na ko wala gisut ko bu ko gisee nga wax ko nu mu ko war a doxalee dégg nga yooyu yëpp dañ ci daan sonn ci kër yi waaye léegi da ngay jur rek bàyyi ko noonu muy wër rek sax yoon du ca nekk waaw période mën na koo dikkal sax te du xam lan la waaw du xam sax lan ak nan la ko war a defee. doo ko jege wax ak moom bu ko defee mu am sa ci yow li muy gis du ko xam ba gisee période boo lëggee mu génn buy def lu bon rek dal di ci jëlee biir su defee lii yépp lu jar a bàyyi xel la yàquteeg jamono gi dugg ci biir kër yi mbas la feebar bu garaaw la moo gën a garaaw corona waaw sàcc gi bëri na réebante bi bëri na ci mbedd mi naxante wi ak tappale bi wax lu doxu dëgg gi lépp a ci mbedd mi léegi marché bi ñëw seer jafe-jafe yi lépp lu ko waral mooy comme li ma la wax mu sidqi mooy ñàkkaa dëggu ci liñ nekk kon nag aaya ba ma tàmbalee woon lañuy jeexale mooy lépp lu ñu dal buñ yedd kenn nañ yedd suñ bopp ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu ndimbalam ci saayar ak baatin ndax ndimbalal yàlla rek mu am solo euh, laamin won nañu ne liñ amoon ci tayam jeex na ñu yeewal ko foofu incha ñaanal leen yàlla sàkku ci yéen ñaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ألف باء تاء ثاء wa حاء خاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرجف suñu mbokk ci yàlla Cheikh Baye Moukhtar Touré ci jàngale ci lislaam mbokk yi dégg ngeen ko su ko defee rek li ñu dese ci waxtu bi la ñuy ànd ak ci téléphone bi 446 1193 su ko defee rek yéen it ngeen jaar foofu